موم تتقو جبات وصدقت بكلمات ربها نحرق لمكن فكلي بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينك مدام انستريكسيون يك واخ صدقت بكلمات ربها وين ندو بباب ناخل وكتابه صدقت ايضا بكتاب الله ما يبي عيسى نيوي اتاني الكتاب تبوبو مونجي مهدي بي mu di yaayam nangu ko fi liir bi toog ci berceau bi mu nangu li mu doon kon féminisme bu ñuy war a wut def ko model je crois boobu moo ëpp doole moo tax li ngay mën a dégg foofu moo xeet woo dem ak nit ñoo dem ñàkkul am nañu seeni coutume am nañu seeni tradition di ca ngoy di ca rey seen bopp mais li ñoo tudd qiimatul qiyam c'est la crème c'est la crème de la dignité humaine yàlla nee na boobu ku yem sax ci xuusi ak sha'air diin doo ci jot mais foog nga dugg ci mexwaru sidqiya bi bi bi bi bi mariam duggoon waaw bul tënk sa bopp ci li diine tëral parce que li diine tëral man nga koy def comme ñëpp ba noppi te du tere nga trompé nit ñi mooy li xew Sénégal li diine tëral yëpp ci ay tuquus ak shaayir am na ñu koy def te du tere ñu mën a trompé nit ñi kon nag li am solo mooy nga jël sa bopp tënk ko ci biir mexwaru sidqiya te mooy koo xam ne loo gëmul doo ko def booy moy sax da ngay gëm moy gi soppi ko mu di jaamu yàlla ci yow kooku ruuxaani yi ne yi ñoo ko xam wallaay ndeysaan billaay ndeysaan looluy tax baat bi ma la fi waxoon yàlla li yonent bi wax ni bu ngeen ko dul woon tooñ kon mu far leen yéen ñépp indi ñoo xam ni dinañ ko tooñ te buñ ko bàllu mu baal kon yàlla bokk na ci li koy yëgloo ni yàlla la mooy jaamam mata bi pour moom mu yëg mëtam mom lay wax Mansour Sarr bii démb ci fiñ don ndogo ba ci ak ma gis rangoñ yi génn fi moy bayt ba wa idha atatk wa idha atatk madammati min naqiz fa hiya ash-shahadatu bi anni kaamilu ki del kutul kenn kenn naw loowu ko bu la xasee bu ba naqadi parce que matadeem mooy wane ni mat nga waaw na parce que ku matul foog mu mottali ko kàddu ku matul mu mottali ko kàddu tax yuhibbuna an tashia al fahishatu fi alladina amanu moo leen di alimenté yuhibbuna doon ni sax dañuy bëgg déedéet waxoon naa leen ko ca jof yoon yuhibbuna dañoo yàkkanti an tashia al fahishatu fi alladina amanu وما نكون محور الصدق الصدقية بابو لكن صفي على رك حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله بس فتنة مونجي كي فك اللي كان موم nga bëgg ku ne nga ñaagal ko ca fitna mu ngi ci fekk lu kenn moom nga bëgg ku ne nga ñàggal ko ci yaa indi fitna diine sax bi mu amee loolu amee fitna ñëw na qul yaa ayyuhal kaafiruun la abudu ma taabun yàlla sax noppeetu ndeysaan te moo waroon noppi ndeysaan ñu di ko tooñ rek ndeysaan te mooy yàlla de mu jege rek ndeysaan kul kul kul muy fees delli jël quraan an tontu la waxul xulool tontul yàlla waxul yonent bi xulool tontu waaye nag tontu baax na qul qul yaa ayuha alkaafiruun laa abudu ma taabuduun waaw lu koy indi woon te mooy dem bay mel ni kuy marchandé yëf yi ni yonent bi léegi nañu def benn pacte bu ñu ci d' accordé booy def sa jàmm ñu ñëw jàppale la bu ñuy def sunu jàmm nga ñëw jàppale ñu yàlla ni ko amee yooyu mooy la qul yaa ayuha alkafirun laa abudu ma taabudun wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abadtu wala antum abiduna ma abud waay waay yàqe lakum diinukum waliya diini waay يا أي قل قل tontul ma ni yaa ayyuhal kaafiruuna yéen ñi goree di démb ba tax tey ngeen weddi ka leen jëmbatoo lu ne nag di ko jëmbat féexlu ca ker ga ba mu des nit kon nag ña goree di waxal ci bi muy neex ni leen laa mënul nekk ma jaxasoo ak ma taabuduuna li ngeen gëm mu simple mënul nekk ma jaxasoo ak li ngeen gëm wala antum te man xam naa ni yéen it du yàgg-yàgg ba aabiduna ngeen nangoo jaxasoo ak ma abudu li ma ne wala ana aabidun sama ngor mayuma ko wala ana aabidun sama ngor mayuma ko aabidun ma sëggandoo maa abattum ak li leen tax di sëgg wala antum te yéen seen ñëpp aabiduuna du leen may ngeen sëggal maa aabudu li ma tax bisa waaye yaa xay jarul muy gudd lëkkum dese leen diinukum li ngeen yaakaar wali ya mayit ma dese diini ya li ma yaakaar bese nga ci xamuloo ni am na koo xam ni da ngay sonn rek mais ila abadil abad xol bi du féex ba ba passé ñu ñëwati waaw sa yàlla ji nga wooti moom doj la wala bant la xam nga rek pour chahuter bu ñu sañoon yàlla gën a ñàkk fayda gën a torox non lañu bëgg won ndax comme ñom seen yàlla yi toroxal nañ ko bu mu yegg fof bu ñu sañon yàlla yi Muhammad toroxee non ñu naan ko ndax docc laam ndax bant laam diko ko laaj yàlla yi niko kul tontul huwa allah ahad jeex lay ndeysaan kenn rek la laysa kamithlihi shay الله الصمد سين يالا يينغن دي لاكال افرا دي لين كو سخال تي گيمين يا كي تالوكو نخ صمد لا غني عن العالمين كيخنا لم يلد كم لم يلد تا يويت موم غا امال افير بولا نيهي يويت لم تولد وخون نالينكو كيخنا da am na ku nga xam ni day génn ci cadre mbokk leneen lay doon waaw moo tax nag yow boo ko gisee ci cadre mbokk te yàlla jox ko lu mu la joxul ay sànn loolu mooy indi yi xew waaw moo tax mu wax leen ni leena alam yakun lahu kufuan ahad waaw lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuan ahad اوكي بارك الله mu wane moom yàlla ni nawle nag yëguma ma am ko mënuma bañ noon nag waaye nawle amul te boobu bu la wóoree rek baax na mu wax ko yonent bi waaw bu ko defee kon nag comme xatta laa takuna fitna wa yakuna diinu kulluhu lillah diine bu tegoo ci teguwaay doo ca sentir lu dul yàlla bis boo demee ba diine nga sentir ca keneen ku dul yàlla rek xamal ne am na lu rox ittaxadu axbaarahum wa ruhbaanahum hmm? arbaaban min duunillah leneen boo demee ba ku génn rekk ak kaalaam di sa yàlla bare kilifa dafa metti bari kilifa dafa metti moo tax nag ci cadre diine ak cadre pas-pas baatu féminisme du man am sens surtout ñu bëgg ko def benn droit parce que li nit ñi war a seetlu mooy cadre aqida cadre aqida ay xuquuq amu ci ay waajibaat amu ci ay faraid ak i sunan moo ci am wàllu yàlla droit amu ci devoir amu ci li ci am moy des recommandations ak des ordonnances bu dik ci cadre mujtama nak moy cadre société ki la yalla di nangu ñu tudd droit tudd devoir ak bu len ñettel moy al adwar rôle dafa bari luñu ni droit la ci jigéen te fekk na yalla pour mom un rôle bu muy joué rek la bu compétence am rôle bi du empêcher liñu koy doye bu vous mu jouer ko donc gannaaw droit yi ak devoir yi rek ne ministre na député na jigéen nekk syndicaliste yépp société rek la amul sens sax biñ ko jox ba ci ba ci ba ci responsabilité bi yenn góor yilif كل صح الرجال قوامون على النساء قوام بي قوام همتي لا قوام حالي يتي غور وبما انفقوا من اموالهم غور جي tañ tañi subaak ngoon di dem di ñaq di indi ci li xew yépp lu dee ci kër gi moo ko rey mais kooku ci orma war nañ ko mën a nangu rek mu ni mani ñu ni ko waaw ah. ah. kooku ormaam la waaye itam yàlla itam bëgg na ñaan góor ñi bu ñu ko def atu ndax yittee ko jur waaye yëg sa bopp juru ko moo tax du tudd sax baatu cohabitation ci diggante boobu mais li mu euh, tudd mooy intégration ak indimage te mooy autorité boobu mu jox góor bis bu góor demee ba yëg ni jigéen ëpp na ko ca taxawaay na ko nangu mooy indihun na libaasun mbubbum kiliftéef ma nga daan sol bu ko nattee mu jot ko nangu ko mbubbum kiliftéef ma nga daan sol bu ko nattee mu jot ko nangu ko waaye yow jigéen jiit antum yéen it libaasul lahunna waaye mbub mi yow itam bu fekkee ni jot na la te wàññiwu la dara te yàqalu ko dara na ko nangu moom itam loolu la ñu tudde intégration bi ci boppam waaye mu nekk intégration bu nga xam indimage al muxayyar indi majal musayyar du lu ñuy forcer kenn nag kenn ku ne ci choix yaa koy defal sa bopp nangu ko parce que loolu nangook sa conscience mooy gën a dal ci yow lu ñu la forcer bu ko defee kon nag baatu mbubbum kilifteef mbubbum kilifteef ndegem moom la ñuy yegg ba matuk jigéen di yegg ci ñu mën koo jël ci góor jox ko ah kon nag mbubbum kese kese ah warul jar mu ñàkk cër ba xaw ndax dégg ngeen wax bi wala déet ah ma ngoog koo xam ni mbubbum kilifteef boo demee ba mu jot la ñu nangu góor bàyyee la nga sol ko jaaxee kooku mbubbu biti nii warul jar nga yàq ko te itam nag huwa alladi jaala lakum libaasan mais yuwaari sawaatikum siixatul jamaa سوءاتكم وتغيواري لمو يفيري لمو يفيري فيري ول مكوفرير مو بروتيجي سون مو بريك بور سكوفرير ديدي سي حبيب واخنا لين كو تي با ديمبو ان لك الا تجوع فيها ولا تعرف mais xamuloo ni am nañu dem ba def gis nga moo tax loo teg ci fitra du ñaaw mais boo ko tegee ci hawa mu ñaaw demal ci bazar yeeg yi seen société na mu tëdde jigéen du fa sol mbubbu presque et pourtant ñaawu fa parce que fitra la mais bu dee fii jigéen bu fi summeeku woon rek ñëpp daw wuti sër parce que dootul nekk fitra hawa lay doon te yàlla bëgg na yu waar yi saw aatiku moo tax baatu fazaru zahira al ithmi yàlla nee na waxuma bàkkaaru biti bi kooku xam ngeen ko mais bu biir bi kenn xamul boobu laa bëgg ngeen def ci jom waaw biir bi mooy yàlla yëg ni li ñëpp def ci biti sa xel a ngi ji li ñëpp yi def ci biti sa xel a ngi ci dafa am leneen loo ragal lu dul yàlla wa taxsha nnaas wallahu axaqu an taxsha te lu tax batinul ithm moo gën garaaw zahirul ithm moom laa leen wax sànq ni leen yàlla am na loo xam ne boo ko defee mëte digg daf koy wën mëtam boo ko tuddee ubudiya mu sax ci moom mais malheureusement boo ko tuddee seytaane rek yëf yi yàqu yàlla kat seytaane ma mën rek yëpp yàqu parce que wan nga ko ni ko seytaane mën na ci man loo mënul te kooku defi la moo taxoon Abdul Qadir al Jaylaani di wax ni jaam bu defee yiw yàlla daw ko jaam bu defee yiw rek yàlla daw ko ndax day bañ mu gis boppam waaye nee na bu defee safaan ñetti fan yàlla du ko may jàmm taxaw rek basiram di ko séen pour bala ko malayka yee bind mu baalu fi nabbi ibaadi anni ana alxafuru rahim moo tax baat bi ñu leen fi waxoon war a tënku ci xudu zinatakum inda kulli masjid kuy jëm ca jàkka ja te jàpp ni mbubb mi nga sol moo la fay jox daraja yàq nga ko kuy dem ca jàkka ja te jàpp ni mbubb mi nga sol moo la fay jox daraja yàq nga ko danga koy def ngir sa teraanga doomu aadama waaye daraja ja nga fay am ak mbaax ga doo ko fa jëlee yaa ko fay yóbbu moom laa leen waxoon ni mbaax kenn du ko wuti ci jàkk dañ ko fay yóbbu texe kenn du ko wuti aljanna dañ ko fay yóbbu mais yàlla jaaxle xamulu ñu bari du ñu seetlu aaya alhaakumu takaasur alhaakumu takaasur xatta zurtum sax almaqaabir يعني يلهيكم التكاثر حتى وأنتم في المقابر إيه <laughs> يلا ني ونبريله ونبريله كم تخنق ديكو وانا ديكو ونبريله di wane bari le ba di ko wane ci bàmmeel dem fekk àll bu kenn xamul tabax ko wut marbre ni bu sama famille dee ñu suul leen fii di tiitaru kalla jaru ko jaru ko kalla sawuf bis nga ci ëllëg taalamuuna ngeen di xam ni jaru ko nag jarul mbàmmeel yu bari jarul jabar yu bari jarul armoire yu fees dal l'essentiel wa thiyaabaka fatahir wa thiyaabaka fatahir mbub mu set mi ci biti mbub mu set mi ci biti fexeel ba mu seede mbub mi ci biir mbubu mi ci biti rafet nga sañse yàlla nee bala mo neex mbubb mu set mi ci biti han mana sédé seede mi ci biir lu mel non mom la yàlla joxe ci image bu daw yaram ci falam ma tawajjahat tilqaa madyan قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل walamma warada maa madyan wajada alayhi ummatan ummatan min annaas yasqawna waaye wa wajada min dunihim imraatayn taduudaan li yëngal Moussa ba mbooloo mu toll noonu daje ca teen ba mu tànn ca ñaari jigéen rek rootal leen li ko yëngal lan la parce que yow gamu gis te jigen ya bokku la gaj ba mu gis te ña def tam na lo xamni yaram ko yek way la tax mu gëm ni jar nako ko fa jaat ihdahuma tamshi ala istihya ca la xamé ni nek la mu sonu jar nako إحداهما تمشي على استحياء لأن الجيجين بو نيو بوغا خامي ييوغا اك كيرساغا سونال نا غور واو ييوا كيرسا غو سونال غور ناخ لا فونكو خيبكو qaalat inna abi yad'uuka li yajziyaka ajra ma saqayta lana c'est très simple xoolal boobu baat ci yar au mu ñëw li ko waaye kaa ñu dem sunu kër invité naa la déedéet bu doon ci sunu jamono lonk ko waaye kaa ñu dem invité naa la déedéet ولك تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا أه. باين ونكت ما دابو سيلا ndax li nga ñu defal fi nga ñu ko defalee ku ko defal njabootu jàmbur mu am waaye moom it ba mu yegsee Shuayb bu teg ko bët lu ca tegu inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn naka lu ko xool rek xam ni kii kuy wutal sa doom borom kër waaye boobu mu bañ laa rom mu ni Moussa ci ñaar ñi kenn nga jël ko te am na lu ma yëg te am na lu ma fas boo nangoo charte yi rek fa xayru pour wax la ni la yooyu mooy li am solo kon mu delluwaat ci li leen waxoon ni kenn ku ne la ngay gëne sa morom booy sangu doo ko summi waaw kon nag fa amma man ata moo tax mu ni jigéen yàlla mooy yéeme mu nuy jigéen bàyyil ma guddi mu sedd la mu nuy jigéen bàyyil ma guddi mu sedd la parce que bu la seddee dal am danak li tas ko nu ilaya loolu lañ la doon doye guddi ba jigéen bàyyil guddi mu séddal ma la ndax bu la séddee dal am te comme li taskunu ilayha dana la amal solo daal di wëlbatiku ni góor ne ko bàyyil bëccëg séddal ma la ndax bu la séddee yitte am